waaw mais salaamaaleykum waa Sénégal xanaa war leen jaaxal nag 100 pour cent jonge kan leen ko dénk fii ci King FM Ngoné Ndiaye géwél ma ànd ak jéeg ji teg leen ci code teg leen ci piste bi ñu décollé wan leen nan lay def nan la ak naka la ma bëgg nag àdduna yépp di ma woo ci 88 628 99 90 ngeen woo ma ma waxtaan a yéen gunge leen ci biir néegu sëy yi maye tubaarkàlla fer yi maye cuuraay yi maye nuisette yi man daal lépp luy bégal tubaarkàlla sa jëkkër rek dinaa la ko may man la Ngoné Ndiaye géwél nag war leen mën a jaaxal 100 pour cent jonge fii day toj.